borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd ba ñu ngi sant Mawlana Xaadim Rasul dellu di ñaanalaat sunu wasila sunu yaakaar sëriñ Xaadim Gaydel borom daam mu yàgg fi lool te ànd ak wér mbokki taalibe yi ñu bëgg leen a jukkil waxtaan woo xam ne mu jëm ci tukkib yoonu géej gi li ko dalee laataa tukki bi ba bi nga xamante ni yegg na ndakaaru ci lañ ko bëgg a tënk xaadim rasul nag Mawlana Ahmadul Xadim si njëlbéenam bi mu nee bërëb rek la daal di jaayanteeg rasulullahi fas yéene si liggéeyal ko si liggéey boo xam ne musta am mukk nee boobu ay bëtam tegguwu gisul ko fenn lu dul fas yéene si liggéeyal ko mu dëppoog la muy wax ni bayaxtuhu bi fuwaadina lam tarawu hinni wax di moohu lillahi muftarida mu fas yéene di ko liggéeyal moom rasulullahi borom daam nee na keroog bi nga xamante ni nii juróomi atam mat na sëkk ci dëkkam boobu di Touba ba ca weeru koor wa di amama jay sasin nee na ci xëlwaam yooyu mu daan dugg fukki fan ci mujj la daan doon ci weeru koor yi di ko royee sangam ba Mawlaana Xaadimu Rasul borom daam nee na ni ko Cheikh Abdoulaye leeralee nee na ci xelwa googu mu daan dugg ci dëkkam googu ci Touba ci Daaru Xudoos mu ne ci jàkkaam jooju mu gisanteeg yi jaayanteeg moom ci liggéeyal ko ak yor ndigalu lu badal ci jiite leen yonent biir it nangul ko ko ci ndigalu boromam waaye da ko caa tegal ay charte daan ni ko dootoo tëdd si lal dootoo xool asamaan doto ɗo ɗi watti saylo ko mune ko santalen sah sulay ɗo ɗo am sey saylo hakko mune ɗo hokkani e aduna ñu boole laksanoni wa jamono juróom ñaari at ñu lay teg ay métit yu métti mu ni doo sañ a jàmbat te dooni lii lu tax mu ni attan naa ko man xaadim rasul mu ne nañ ma ko teg mu ni ba mu waree la wutali mbàkke baari jolof di xaar natt bi sëriñ xaadim gaydel borom daan nee na fukki fan ak juróom ñett dib gaawu dëppoo woon ak 5 septembre 1895 nee na ci lañ ko jàpp nag génne ko mu ne ca demam googu mu ngay wax maam Thierno Ibra Faty nan ko inni xarajtu yow ma sabti saami yamasal min shahri safar yaama jaysasin min addaari mu ne yow sama mbokk na nga xam ne man de génn naa sama kër gi ma sañtoon ci Mbàkke Baari ginnaaw bi nga xamante ni lettre buuru Ndar mu ne di convo convocation bi mu ne dikkal nunu fa ci laa génn fas yéene soobu dugg ci liggéey nee na bi muy génn Mbàkke Baari mu ngi war fas wale la ko yàlla jël boole ko ci wóoru la masin mu ne ca dimanche ga nag ci la wutali kokki kër Matar Ndumbe Diop moom Serigne Touba Xaadim Rasuul ne woon na ku mu maasaloon jamono rek nee na mooy sa xut bu zaman mu ne ci jamono jooju nag borom Touba ci la tàmbali woon xasida asmaawul ahlu badri mu ne xasida xasida gi nag mu ngi mate woon foofu ca Ndar mu ne gannaaw loolu nag ci lañ wutali Louga Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul de mi ngi waru fas woo xam ni mu ngi tudd amul laahi nee na dafa mujj fasam woowu moo doon raw fasi tubaab yi nee na fasam woowu nag ngi doon dawee bayit bi nga xamante ni nii bu Seydou mu ngi ko doon wax ci burdu ka annahu wa huwa fardu min jalalatihi fi haskari himnatahu wa fil xasani mu ngi bayit bii nag la fas wi doon dawee Serigne Khadim Gaydel borom daal nee na ji borom Touba di demee ci tukkeem bi nee na mboolem màtta bu waaju baax mu sa am nee na ci kaw suuf nee na am na ko ba mu mat sëkk mu ni teg te it maa leen ëppoon imaan ëpp leen islaam ëpp leen ihsaan ak mu laazimatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom borom Tuubaa mu loolu de mu woon a ñaar nee na keroog nag bi nga xamante ni nii conseil privé ba convoqué woon na képp koo xamante ni jamono jooju yaa ngi daan woote ak sëriñ ba ñu tollee si juróom ñett fukki ak ñeent muy ngir suñu looleen mu ne yàlla amul yonent bi amul alxuraan ay gént la soo bañee ñu boole la gaynde gi ñu jëfandikoo la ñu daal di woo numéro un Mouhamadou Yàlla Aminata Diop numéro deux ñu woo Serigne Makka Birama Xaali numéro trois ñu woo Serigne Balla Cokket ñu ñoom ñett ñëpp bi nga xamante nii ku nekk gàntu na dañ laa jël tàbbal la ci gaynde gi mu xewloo la waaye bu ñu àggee ci nga ki nga xamante ni nii mooy numéro quatre nga xamante ni nii قدمه رب العباد على جميع من أفاد فهادهم إلى المراد وساد جمح الأمم ki nga xamante ni nii mooy Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul keroog la signé signature bu siiw boobu muy qul huwallaahu ahad allaahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad